jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su mbokk yi gis ngeen euh, dimanche bi weesu euh, Jax production moo ñu woo fëra ca terrain gaal gi mise bi nekkoon deux millions cinq cent mu nekkoon lutte traditionnelle boo xamante ni keroog ku maroon làmb yaakaar naa ni man nga làmb euh, ñuy félicité bu baax général Malika ci ndam loolu nga xamante ni am na ko tey ñu ñëw fii ci arène ki ñu fi woo di eh, njaay production ci njiital ga di Fallou Ndiaye euh, nga xamante ni vraiment 4 millions la teg 4 million nag bu ko Fallou Ndiaye tegee dana doon loo xamante ne mbër yëpp dinañ wàcc si champion yi dinañ wàcc si di ngeen gis làmb di ngeen gis cosaan moment bi ma wax yow ay xale ñu ngi dugg si ci làmb ji sëñ Basirou dañuy ànd dugg ci biir xool ambiance xool cosaan xool bakk xool culture xool lépp loo xamante ni dafa bokk ci làmb daa bokk ci di décorer làmb kaañ dugg sëñ Bas. ñun la ak yéen wasaare làmb kaay kaay kaay kaay. am jàmm chef la respect ah. maa lay siyaar. Mohamles. Mohamles dama naa la. ba nga gëjee décortiquer làmb la làmb rafle la làmb mar. lamb Baab Lees Baab Lees lëlu nga nag. salaamaaleykum waa wasaare làmb ana waa ji nga xam ne day ñëw ne saraax ci biir kër gi. waay wax nga nii <laughs> waaye yéen am jàmm. Euh, yàlla na jàmm ji gën a yokk. Euh, corona bi nekk ci réew mi nii ñu commencé nii yàlla na am continuité ba xale ndaw yi nga xam ne jëloon nañ avance jaabur ñu bëre ko ci jàmm. promoteur yi libéré leen wasaare gis seen bopp ñeneen ñi nga xam ne ci làmb lañ yëngu ñoom it gis seen bopp ñoo ngi am contentement ci bis bi Fall organisé tey teg mise bu am solo ñuy ñaan yàlla rek képp ko xam ne sa wërsëg la yàlla na nga ko jël jàmm ca mu jig la. waaw ci doon dinaa ñëw ñu yaatal waaw maa ngi waajal màggalug daaru mu sigi nag yow xam nga fi ma daan fekk. non màggalug daaru gi damay bañ ji li ñëw na saraax ci biir kër gi. Mm. parce que altine lay bañ fi toll yaram bi tàgg na. <laughs> eh. maam lees buur. nga xam ne jàmm. alhamdulilah. bisimilah ñu fas yéene dugg ci ci arène bi. bisimilah. Bora, Angela, Bele. dee ñu pion Doudou Sané ngi noonu ndeysaan doomu Joof yor baa ngi noonu Doudou Sané ngi noonu champion bi nga xamante ne làmb namm nañu ko Doudou Sané ngi noonu day dund làmb day dundal làmb te làmb ñaari moo ci nekk fii yaa ngi koy dund mu lay dundal fii ak yaa ngi koy dundee mu lay dundal xoolal ma Doudou Sané la mu yor ci loxo gis na ci porte bi booy fay keroog bi mu ñëwee général Malika moo ko éliminé waaye tey ñëw na àndaat ak ay mbokkam àndaat ay njegenaaleem def nam daan def moom booy fay ma nga noonu taxaw gis nga béjjënu kooba bi gis nga sëru rabal ba gis nga la nga xamante ni booy fay def na ko muy wane ni làmb ñi ñàkkoon ñëpp ñëwaat nañ compétition la ay xale ñooy dugg si mais gis nga ku ci nekk am na gëm-gëm am yàqin ku toll ni ndam li tey maa koy jël kat moo ko ciy jël ku ko ci jël dangay xam ni kii mooy sa wërsëgam ndaysaan booy faye ngi noonu gis ngeen booy faye ngi noonu ndaysaan ma nga yor béjjënd kooba ma ngay léemu ci loxo ba takk ci benn morso bu xonq gis ngeen ko ma ngay fëgg ngemb li loolu nag ci làmb la bokk ma ngay léemu muy wane ni li traditionnel mental bu baax da koy def ndax boo amul mental bu baax boo ñëwee ñàkk da ngay jàpp ni saa yoo bëreetee da ñàkk <laughs> ey làmb ndeysaan ey làmb ey làmb Fils de Batlen Siteu ngoog xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb ndeysaan day dugg làmb waaye da koy dundee ma ngay léemu ma nga yor ay galañ ca loxo ba fëgg na tànk ba yor na nu béy jënd koo ba ràngoo na sengoor ba moom Fils de Batlen dugg si na ci compétition bi ndeysaan ey làmb ngi noonu Doudou Sané ngi noonu mbër siyaar naa loolu ziar. namm naa la. maa raw. tey dugg si nga arène nationale xam ne làmb yëngu na dimanche bi passé Jax production moo organisé woon gisuñu Doudou Sané tey dimanche bi ñu gis la euh, ban yëg-yëg nga am ci làmb ji. non kontaan rek comme que bàyyi nañu làmb ji moom amuñ ci lu dul mbégte rek bilaahi mu mel ni Doudou Sane dafa pare pour ñëw jël compétition bi dem wax ko yàq wax la jeex na tàkk dama koy jël si kattanu borom bi waaw kay. diggante boo xamante ne euh, général Malika ngi ci yoon bi booy fayee ngi fi Serigne Ndiaye 2 ngi fi euh, Cheikh Tidiane Niang ngi fi Doudou Sane ñëw ne dama koy jël. xanaa xamoo Doudou Sane. ku ragal ñu rendi ko kooku mooy Doudou Sané amul lu muy hésité billaahi commencé goo jël am na ko dugg si xale la boo xam ne ñëpp ko bàyyi xel ci làmb ndeysaan ma nga noonu cey Cheikh Tidiane ñaa la boo xamante ni bàyyi leen ko xel bu dugg see rek nga gis champion yi ñëpp jóg taxaw yuuxu ndax njomam ndax njàmbaaram ndax fullaak faydaam moom Cheikh Tidiane Niang ndeysaan ma ngay noonu lii nag mbokk yi yàgg na ci làmb coowal porte ak làmb ñoo ànd ndeysaan kii mooy dugg kii du dugg kee mooy dugg loolay làmb ndeysaan ndeysaan ndeysaan fu mu dugg see ñu yuuxu moom Cheikh Tidiane Niang ndeysaan dugg ma ngay dongali ma ngay dongali ma ngay lamb yi kontaan nañ Cheikh Tidiane ñaa dugg si ci géew bi samp na béjjën ba ndaysaan rëdd na cey làmb Cheikh Tidiane ñaa sampaat na beneen ndaysaan ñaari béjjën ñett béjjën moom Cheikh Tidiane ñaa ndaysaan ngi noonu dugg si na Libidor a ngi eh, bi nga gis nu garaw tas yaakaar ndeysaan ma nga noonu Bawol a ngi noonu Ada Boy Bawol ngi noonu Ada Boy Bawol a ngi noonu Ada Boy Baol a ngi noonu ma ngay dugg si ndaysaan sama xel dem na ci journée Yaxya Joob Yékini bi fële ca Mbuur moo ko jëloon wala boog moo final woon digganteem ak Franc ndaysaan Ada Boy Baol a noonu ndaysaan Ada li ma gën a neex ci compétition bi mbër buy dugg si day yaakaar moo koy jël da gis mu fecc dongali ndaysaan moom aada booy bawal am na kuy dugg si ci porte bi kàlla am na kuy dugg si Ndeysaan Toubacouta ngi noonu dugg si na tàlla ñaari loxo yi ca kaw moom Toubacouta ma nga noonu Ndeysaan Toubacouta ngi noonu. Franc ngi noonu dugg si na Franc dugg si na Franc dugg si na ngi noonu dugg si am na lu mu wis. Emine François Gomis dugg si na ci compétition bi. <laughs> sa lamba ngi noonu. ah Franc ngi noonu. ndeysaan laal na épaule ya. nee na dafa am doole. nee na day yóbbu. Petit Lo. ah. siyaar naa la delloo siyaar. jàkkaarloo caméra bi ci loo nekk. sant yàlla ba alhamdulilah. nga ñëw ci compétition bi. Euh, bi mooy sa première sortie wala. waaw ah, mooy sa première sortie Dakar mais naa compétir ci àll bi wax dëgg. ñaata ñaata ñaata kii nga jël parce que daaw gis nañ ay preuve yoo xamante ni yaa ngi ko doon def ci làmb ji tey nga ñëw ci làmb ji euh, ci poids bi nga bokk wala poids léger. non maa ngi ci poids lourd yi. maa ngi ci poids lourd yi poids lourd yi. yan poids lourd. ah yi fi nekk. Franc. Ah. Serigne Ndiaye 2. ah Cheikh Tidiane Niang. ak kan. Doudou Sané. ak kan. Boy Faye. ak kan ak yow Petit Lo. waaw ah, mën nañ ma gën a diis mais mënoo ma génnee ci poids lourd yi. déedéet. waaw ah, mu ngi noonu. koo ci koo ci jàppante di nga jëflante ak moom. ah waaw yàlla baax na li ci kanam raw li ngi noonu. kaay dawal ne. ndeysaan. fils de bat leen sigi. la. ci loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax. waaw sant yàlla bu baax alhamdulilah. di gisiwaat ci compétition bi. bii passé bi nga ñëwee tere gal gi danga ngaa ñàkk mais nga àndaat ak sa ngor ñëw ci compétition bi la ban yëg-yëg ci am. non ñun li mooy suñu liggéey. Hmm. dañuy ñëw tay am suñu ñëw ñàkk lool lool lool lool mooy àdduna quoi. mais tag yi dañu ñaan yàlla jël ko rek dañu def lu ñu war duñ duñ duñ dañuy def lu ñu war daal uh-huh. du ñaan yàlla jël ko rek incha allah tey dafa mel ni day gën a ala daw mais par rapport ak bi ñu gisoon fële ca terrain gaal gi ndax gis nañ ay ndaanaan yoo xamante ni dugg si nañ uh, mun naa ci cité koo xamante ni gisuñu ko woon ku mel ni Doudou Sané dugg si na Ada Boy Bawol dugg si na Emine François Gomis dugg si na ñoom ñooñu ñëpp nga war a jëflante koo ci bëgg nooy ñoom dañuy rang rek mooy firi di bàcc rek ñoom ñëpp dañuy rang rek waaw ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp dañuy rang rek moom firil bàcc rek. kon ñu wax sa supporter yi ñu xaar. waaw ñu ñu ko doon defee rek. waaw comme ni ma ko defee rek. fils naa la. noo def. sant yàlla bu baax. mbaa yaa ngi am ma nga ca débat teg wax. gis nga ma laal. am na lu mu jot a jël sengoor la. ndeysaan benn sër bu verte la. cey làmb xoolal ma lii bul mu koy téeñu teg na suul na am na la muy def saan li bi door a ngi noonu nday saan li a ngi noonu mbër na mu naa la maa la raw noo dundee tey bis bi neex rek ah. neex rek ndax bu ñu tegee 4 millions champion war na wuy si quoi seen li amateur bëgg rek lan bëgg quoi bëre mu neex yëngal mu neex loolu nag moo ñu fi ni tey di ñaan nag yàlla na yàlla ndam defal ñu jàmm c'est la première fois ma ñëw aar. national national c'est la première fois mosuma fi bëre. kon war naa fee wane fula fayda yàlla may ma ndam incha allah. kon bi mooy sa dugg si bu njëkk ci arène nationale. bi mooy sa premier dugg si fii. nga war a wan arène bi lan arène bi moo la war a wan boppam wala yaa ko a wan sa bopp. arène bi war maa wan boppam war ma war naa ko wan sama bopp ñu déggoo ñaar quoi mais oh, oh, compétition bi daa mel ni nar naa gën a saturé ndax gis nañ Franc dugg si na Doudou Sané ngi fi ak yeneen champion ku mel ni Toubacouta euh, Cheikh Tidiane ñaa ngi ci biir Serigne Ndiaye 2. ñooñu gis ñooñu ko mu leen de ñooñu gisul ko leen ñu ngi ci biir ñëw nañ. ñëw nañ ñëw nañ ah, wala ñëw ñu. ah man gisul ko mu leen. gisul ko leen leen sax. tournée Fallou Ndiaye bii passé yaa ko jël. bii ngi la. ah ñëwaat rek war a def ma defaatoo incha allah. Hmm. waaw xoolal sóoraale mu leen sax. <laughs> lamba ngoog Eh, waaw waaw Wassare ngi nii de. Tony sama site baa nii gëj naa kaa gis. ndeysaan ndeysaan dëgg la dëgg la Tony. sama site a gis de. waaw ñu ngi ci jàmm baax a baax a baax. ñëw ci compétition bi euh, depuis sortie bi bi mooy sa sortie bu njëkk wala génn nga yéen. waaw waaw jël naa benn ñàkk naa benn jël naa benn quoi. Uh-huh. ñaari sortie laa def. fan nga jël bii mooy troisième bi quoi. fan nga jël Gambie ñàkk naa fa jël naa biir Gambie quoi. waaw uh-huh. ah, mais nag yàlla rek parce que tey moom dañoo war a ñëw pour confirmer du bisu wax hmm. tey bisu jëf ñu gis la tey loo ma wax mos naa cee teg sama bopp. tey jii bisu jëf ñu gis la du bisu wax amul lu may wax te lu dul maa ngi sant waa Kër Mbir. ba ji ah. maa ngi sant waa Kër Mbir ba manuma am ñu gën Kër Mbir mm. parce que dañoo sonn si man ba ji xam nga ay nit tey di def di def moyen pour jàppale mbër di ma dooleel chaque instant guddi ak bëccëg manuma leen a sant maa leen di maa leen di ñaanal bu baax ba li ñu bëgg ñoo xam yàlla leen ñaan rawatina fan sa club bi. fan sa club bi maa ngi leen sant bu baax Feeraay Cheikh Baye Fall Sita Abdou Fall Grand maa ngi sant ñëpp daal parce que dañuy doole waa war jaxal kenn du ñoom waa war jaxal maa ngi di sant bu baax mais tey daal incha allah bisu jëf du bisu wax. ayca doon nay maam góor gi Ndiaye dugg si na Serigne Ndiaye numéro dugg si na bett ba woon dina dugg si yaa doon Moustapha Gueye yaa doon Mbaye Gueye yaa doon Gris Bordeaux yaay Tigre de Fass. yaa doon Papa Sow yaa doon Gris 2 yaa doon Lac moom Serigne Ndiaye xale la boo xamante ni day dund làmb xale la boo xamante ni am nañ ci moom yaakaar waaye bu duggsee ci làmb nga xam ni mën na li muy def moom Serigne Ndiaye ndeysaan ma ngay wax ak ndànk ma ngay wax butéel ba am na lu mu naan moom Serigne Ndiaye numéro 2. bett ma woon bett ma woon ay waay cosaan a ngi xoolal ma leket ba xoolal ma ànd ba xoolal ma sëriñ ba xoolal ma sëriñ Ndiaye numéro 2 ndeysaan kaay leen jël waaw waaw dawal mu gaaw defal lu gaaw defal lu gaaw ma ngay wax moom Serigne Ndiaye dafa yàqamti ñaar xabta la koy def yàqamti gaaw a jooy xabta la koy def du ma ne wax xabtal nañ ko de Serigne Ndiaye numéro 2 ngi noonu <laughs> ndeysaan ma ngay sottee ko butéel ba ndeysaan xoolal ma Serigne Ndiaye butéel par butéel jël na béjjënu kooba ba dugg si na daw na Serigne daw na ma nga noonu di dem ci digg géew bi <laughs> cey làmb Serigne Ndiaye numéro 2 noonu ma ngay léemu ma ngay léemu ma ngay léemu ma ngay léemu ma ngay léemu ndeysaan kooba bi kooba bu bees la ñu ngi ko aw ñu ngi ko aw ndeysaan alagul naam ezango mafikane coy ñono daya hoyta kukasiri alagul naam ezango mafikane fay nuy naa la ñu ngi lay fay baax jili sant yàlla baax daa mel ni bi mooy sa deuxième sortie ci compétition waaw loolu la yàlla def waaw waaw keroog gaal gi bi nga ñëwee da mais dellu si waat nga ngémbuwaat wane ni compétition la seen métier la dugg si waat nga tey. waaw gis nga nit ki li muy utee ci lay ñàkk rek yal na yàlla ànd ak ñun yal na yàlla ànd ñun. yal na yàlla ànd ñun waaw yal na ma sama liggéeyu nday wallu ci bari Seydina Mohamed. loolu rek ngay rek laa ñëwoon. ndeysaan xale baa ngi noonu ndeysaan ma nga noonu moom Serigne Ndiaye numéro 2 xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb ndeysaan Fass am nañ ci moom Medina am nañ ci moom yaakaar Colobane am nañ ci ñaa moom yaakaar ñaari tali benn tali xale la boo xamante ni lamb da koy jox cër gisuñu ko bii passé waaye gisaat nañ ko est-ce ku ko nuyu di la fay Serigne Ndiaye nuyu naa waxul fay ndeysaan waxul lamba gi noonu Serigne Ndiaye nuyu naa daa ko nuyuwaat de ba tey ndeysaan doon nay maam góor gi Ndiaye doom day Moustapha Gueye doom day Gris Bordeaux moom Serigne Ndiaye numéro 2 xale la boo xamante ne gis nga ko la ma la doon wax ci Cheikh Tidiane Niang moom laa wax ci moom lamb duñu ko fooyee déedéet sport la waaye bu ñu ñëwee dañuy wane seen bopp. daal maa ngi lay nuyu. Baye Jili maa lay nuyu di nuyu borom gaal gi jàmm mbégte ci wasaare daal di nuyu waa Sénégal gépp di wax ne ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi. di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi dëgër di ko ñaanal Baye Jile borom léegi-léegi di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène ñooñu dañ may ñaanal ñoom laay ubbee ñoom laay tëjee ñu bari ñu ngi doon waaj jàkkaarloo yi nga xamante ni idaali dëgg na ko rawatina tournoi bu am solo bi nga xamante ni organisé ko ko grand bi dox ci diggante Dab Daan ak Mbaye Tine Junior combat boobu signature bi ñu ngi ko jàpp le 10 lan nga ci woo suñu sur boobu Fallou Ndiaye di jël rek 5 millions may sant Fallou Ndiaye rek sess bi mu def ndax su tegee lambam ne ma ñëwal boobu ngay def noonu ñëwal ñu def ko tirage bi fii loolu mbégte laa ko def di ci woo ñëpp diggante Yankaaw ak Albarka Kayre ak Kaaw Gourdin am na yeneen xale yu ci war a bëre teq jël war na ci bëre ak réparé euh, Koña de ak Ronaldinho war nañ ca teew jeex jàmm war na ca ak Ama bu Yoff ak yeneen combat yoo xam ne mi ci malam ñaane war na ca ak Guèye bu Faas ñu ci borom turki mais yi rafet na de. yow ñëwal kër ga jël si ko léegi léegi léegi nii. waaw waaw maa ngi ñëw. Fallou Ndiaye. bi foo masque bi dañ. masque bi masque bi. ma lay nuyuwaat bu baax. di la féliciter ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne def nga ko. mais def waaw def nañ ko. ah ñu gis na Gambie journée bi nga fa dëgg mu nekk journée bu am solo tey nga ñëwaat Dakar organiser waat fi lu mel ni teg 4 millions tegal ko xale yi mu mel ni Fallou nekk nga ci bëre door bi waaye bëre simple bi am na loo ci bëgg a def. waa mais xam nga àdduna boo ci nekkee boo yokku rek da ngay wàññi dañu amatuñu droit def erreur ci làmb amatuñu droit vraiment deltu ginnaaw dañoo war a dem ci kanam yàlla dogal nag yéen ngeen ne fi seeni moom ne fi ku mel ni Basiru mii wóor na yàlla dama jàpp ne bu journée mel nii moom bokk nañu tax ndax suñuy yëf yemalee ko yëfi kenn di ñu jàppale di ñu taxaw. kon nañ koy sant di ko gërëm moom Basirou. xam naa yaa baax rek sëñ bëggul ku koy wax. yaa baax rek mais barke sëñ suñu xol daa sedd ci moom fees. da dina xam ne suñu xol sedd na ci moom ndax am nañ mbégte bu baax ci moom. di sant am faxu axlu làmb yëpp. ndax xam nga li yombul. arène nationale li ñuy bi ci kaw bariwul. kon tey bu nee ba fii fees ak li ñu wax corona bi di saa si gars yi bañ ne il faut ñu toog. kon nga xam ne vraiment am na cër bu ñu làmb jox. kon duñ def lu delloo wax leen ko. sant leen gërëm leen. am mbégte bu baax ci amateur yëpp di sant du jaay jéego bu baax di sant bépp amateur muy grand Gora Ndoye képp ku fi ñëw rek am nañ mbégte jéego sant nañ la bu baax a baax. lutte avec frappe ak lutte simple ban moo ci gën a yomb organise organiser ak ban moo ci gën a métti. non lutte avec lutte simple moo gën a yomb a organiser ndax lutte simple mise bi ren ngay teg soo déggee mise bi après li ci des ay promotion ngay def def xool noo def ba jaay bis bi mais bu dee lutte avec frappe boo xoolee ay vingt litres lay nekk ku ci ne nga bëgg a moom. ku ci nekk ba wax ak moom day compliqué mais lii bu dee loolu la yow mbëri bu dee lii la yaa mbëri amu leen benn wax ñoom day dem CNC bindu yow nga dem CNC yóbbu sa mise lam ñi ngeen daje ñoom ñuy bëre yow nga ne sa organisation kon yaakaar na lii moo gën a yomb fuuf te it moo gën a neex a yaa ngi waajalaat le 10 euh, fii ci arène nationale lan nga teg. waa le 10 dañoo yokk mise bi def ko million millions comme tey 4 millions lañ defoon dañoo ubbi rek gis nañ ne tey euh, neex na macha allah ndax amateurs yi wuyu te amateurs xam nañ ne vraiment tey ay champion mag nañu wàcc fii. Cheikh Mouhamadou Fadal sama xarit bi. jili maa ngi lay siyaar di siyaar waa Wassare. di siyaar sa caméra bu baax bi nga xam ne du yokk wax. du ruux wax. du taal dëkk. sëñ Bass maa ngi lay siyaar. du nu jaaxal ne ndax sat fan la tuddee. man na juróom wi laa ba xam ba ji la. waaye vraiment de Ilimani. est ce que boobu ji la. sa turandoo daawul wax lu ñaaw. déedéet daawul yokki wax. déedéet du taalum dëkk. déedéet man xaw kon koo dond. yàlla nga am ñaareel ci at wi booy wax amin sama ubbaaj di la génne. waaw <laughs> man ubbaaj a wóor. allahumma amiin. ah. <laughs> ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan wax nga dëgg. sëñ Basirou sëñ Fadel. Fadel ñu ngi lay félicité. gis nañ li ngay def ci dakaar Buzz social. vraiment ngeen yéeg ba toll ci un million d' ak 1 million yi ma ngay teg sax yàlla na jëm kanam yàlla na liggéey bi yokk loolu rek mooy wane ni liggéey rek moo am solo Cheikh Mouhamadou Ba. jërëjëf Jile di la siyaar nag di siyaar sa cadre bi sëñ Bass. yëf yi liggéey rek la li may liggéey Dakar Buzz da ngay liggéey wasaare bi nga ñëwee wasaare da ngaa yokk mais wàññi woo di liggéey liggéey bu am solo di ñaan wasaare yàlla na dem ba 2 millions abonnés liggéey rek ta bañ a wax li ma naan jëf ju wax ju bari wax ju tuuti liggéey dong la yaa ngi liggéey liggéey bu am solo nag yàlla la fa la cat da nga ñëwee wasaare am na foo ko fekk waaye am na foo ko yóbbu ndax gis na niveau bi macha allah yàlla defal sa te yokk say xéwal te nga yaru tuuti rek bañ a yokki wax. du ma ko yokk mais Cheikh Modou Fadal li ma yéem mooy des fois Dakar Buzz social damay gis maladie fi ñuy toll man du ma sax ñemee seetaan ci écran bi loolu boo demee di ko jëli en tant que ki nga xamante ne yaay liggéey mu nekk sa liggéey ban yëg-yëg nga ci am. wàllu métti boo xoolee vidéo yi njëkk dama ci jooy. mi ngi mel ne métier bi commencé opérer loo ci gën di yàgg rek di gën di maîtriser loo ci gën di dem di gën di di gën di comprendre mais nit leen comme ñëpp dañ koy yëg di jooy di am métit ndax métit dama sax ci xol nga nekk ak nit ki mu ne la damaa am métit ça trois jours yoo xam ne aw ma sax fukki dërëm pour jënd café bu fekkee am nga loolu yëpp day am soof sa xol tooy mais niñ koy yëgee dañ koy yëgee loolu dong la mi ngi mel ne kii opéré rek bu yàggee opéré dem ko safat waaye niñ koy yëgee mooy niñ koy yëgee rek lu métti loo xam ne wax dëgg yàlla demoon na bañ dañ koy bàyyi waaye mënuñu ko ndax danoon ci ñun yaakaar waaye jàppal ni na ko nit ñi yëgee di jooy ñu la ko faral di yëgee di jooy yow na xam naa sa bi ñëw ma ko sax xool yow yow sa bi dara bëgg a jula mais li ma jaaxal mooy ku ko def dañ koy wax am na ci ñoo xamante ni dañuy yëkkati ndimbal di la ko jox moo xam mu bari moo xam mu néew moo xam nu mu munti doll ngir ngay jàppale ñi nga xamante ne ñooy malade yooyu ñooñu mën nga ma cee sideel ay tur. bari na kenn rek koo xam ne nangul ma tudd turam muy l'international Cheikh Kouyaté di capitaine équipe nationale damay dugal kaa mu woo ma ñëw mu jox ma 1 million ne ma joxal waxoo malaat bi bëggoo ko tudd waaye dañ koy wax ngay ñut ku baax Kouyaté maa ngi ñaan lu international di am yàlla na nga am lu kaw seen jot ak Amer ak Mouhamed Amar nag Mouhamed Amar nekk ci Amérique boobu nga xam ne tubaarkàlla yaay faj maladie de yaay docteur ci ñii nga pikir ñii nga joxe doom ñii nga entraîné Amar yàlla sa jaamu yàgg <laughs> boole ma ak Amar yàlla boole ak Amar <laughs> jërëjëf ay góor nekkuñ ci lamb ji xanaa lan la muy wax daf ma daan ñett yoon beneen la ma mos a daan mi def poids léger du ma ko weddi mos ma daan Demba Diop mais ni du fen mos ma daan beneen dama koy nangul mais bu mu wax leneen daa mel ni bëggoo ngeen ñu tirage da ngaa bëgg moom direct déggoo ma de bu ko neexee dama ko teree neex dama ko xamal wax ji wax fay góor ñoo fi nekk Ada <laughs> Boy Baol kaay ndeysaan ndeysaan Duudu Saane ngi noonu waa Duudu Duudu Duudu yaak Ada Boy Baol nu mu demee nii ay Duudu Saane ndeysaan ngay takk ay jaajam waaw da nga takk ay jaajam moom Duudu Saane boo ko gisee ni mu ñëwee nga xam ni tey daa décidé nee na da koy teg ci loxo bi xaw ma lan la duudu di teg ci loxo bi waaye ma ngay defaat ci ay déeba déebam ma ngay takk lii nag décor la ci làmb ndeysaan ñee takk nga takk mu dëgër ndeysaan danga koy may ba mu noppi daa di wax ak yow lii mooy làmb ndeysaan duudu saane ndeysaan doomu Diofior bi moom Doudou Sané ndeysaan gis nga ma ngay dugal sengoor ba xoolal ma lii ci làmb la bokk am na lu mu téye ci loxo bi xoolal ni mu koy dugalee cey làmb làmb garaw làmb yéeme waaye làmb neex billaay duudu duudu yaa ngi aada booy bawol lu xew. booy boobu daa nga am waay daa wax. benn yoon nga ko daan nga ne daan nga ko ñetti yoon. du rek lay def. maa ngi jégalu supporter yi nag si wax boobu. yaram bee tàng. waaw gis nga. mais Doudou ngeen laale yéen ñaar. ah. bëgg ngeen laale. xanaa du waaw jeex ay ca Doudou Sané. ndax. cëm. daam. Baye Djili. Takamu ñu ngi lay ziar. yaa ngi jàmm maa ngi si jàmm maa ngi sant. yaa ngi ci compétition ba tey. waaw maa ngi ci compétition ba léegi. Ah. mooy loolu waaw yokk cër doole ñeex rek. ah mais kan nga éliminé gum. éliminé naa kii. Euh, maa éliminé Ngor Dangaan. Ngor Dangaan maa ko daan waaw. ak kan maa éliminé kii Boy Faye maa ko éliminé. waaw kan nga war a am final. non ku ñëw rek baax na man moom bàyyiwuma kenn. mooy loolu noonu. baa mais làmb ji noo ko gisee. neex na ambiance baa ngi daw ndënd yaa ngi wax waykat yaa ngi wax. gaa yaa ngi yuuxuloo làmb jaa ngi daw mi ngi neex journaliste yaa ngi def seen liggéey mooy loolu waaw. nga nekk xale boo xamante ne xale bu am talent nga. ñu ngi gis liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy def. loolu lan la doon mais xam nga rek doon la rek ak loolu la may. nga gay foowee xam nga ba mujj neex jaamu yàlla yëpp da nga ciy mujjee sóobu rek di def gars yi di kontaan loolu ko am. mais sedd na da ngay rek ndox. billaay wallaay. sotteekoo ay soow rek. bëgg am rek. billaay wallaay. barke Sëriñ Saalum. ndeysaan. xolal ma gars yi ña ngay yuuxu daam ay supporteru daam lañ daam supporter yaa ngi yuuxu sama gars barke Serigne Sall lañ maa bëgg samay waay lañ jaanaale ne ma lool sama gars yi président maa ngi koy nuyu président Ali ahlu lamb Sénégal Alfali ñoom Fatou ñoom ñëpp maa ngi leen ziar barke Serigne Sall du nuyu sama gars yëpp mooy loolu noonu borom baax lañ président Alfali daam la gis nga ni ko gars di yuuxoo moom dam